wa ala alihi wa ashaabihi daa'iin wa man tabi'a bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin wa radiyallaahu an qutbil maktuum mawlaanaa abil abbaas seydi ahmad tijaani wa an saa'iri xulafaa'ihi wa alaa ra'sihim sheykhul islaam wa saadatul anaam mawlaanaa cheikh ibrahima Ñas radiyallaahu taala anhu wa nafaanaa bi barakaatihi mbokki jullit yi mbokki soppe yi maa ngi leen di nuyu dolli ko ci nuyu yu kawe yi nga xam ne jiitu na ma fi ak ak yi ci topp yëpp muy bis boo xam ne bis la boo xam ne fàttaliku luñ fàttewut la waaye dañuy gën a jëmmal euh, nekkaay bi nga xam ne moom lañ nekkoon ak Cheikh Mouhamadul Mahmoud Ibrahim Niass mi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu wax ko wax ay jikkoom soo kàttee kàttañloo ci wax ay jikkoom wala ay melokaanam sa waxal jikko yi Mawlana Cheikh Ibrahim ak melokaanu Cheikh Ibrahim noonu la woon ca bëgg ñëpp ak tabe ak baax ak am kersa jikko yi nga xam ne yaa ngi koy xool ci Cheikh Ibrahima Niass yëpp soo ko soo ko teeloo ci sëriñ Mamoune yaa ngi koy gis foofu kon nag bi mu demee itam mi ngi mel ni demut wax ndax tey la fi gën a nekk nit ci yàlla yi suñ demee lañ fii gën a nekk nekk boo xam ne dafay biir kon nag euh, su amee bis boo xam ne dañ koy fàttaliku ñi ñi ñi fàttaliku sant yàlla la mu tolloog at mu bees mi nga xam ne mooy fàttaliku moom itam gàddaay ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne mooy naissance yi lislaam muy weer yi mooy ci la xaj gi nekk ndax feet bi ñuy feetu mooy aj gi suñ jaamoo yàlla ba at mi jeex ñu def ko yàlla yonent bi daal di ci barkeem mu doon taabal ci mboolem mbindaakoon ni ñëpp daal di def ay ay teraanga nga xam ne bis boobu kon ku ko yëgul sax yaa ngi koy yaa ngi yaa ngi ku xamul sax yaa ngi koy yëgal yaa ngi koy yaa ngi koy màggal euh, am na itam nekkoon naa Dakar lycée Kennedy ma gis xale yi yoo xam ne am na ay yoo xam sax waaye duñu ay jullit ñu tànn tànn làkk làkki arab pour mu de seen làkk waaye ndekete yoo def du loolu waaye dañoo gëm ne oustaz yi jàngale ci école yi arab dañuy influencer nit ñi pour publicité l'islam soo bindee bisimilahi rahmaani rahim ci tabal bi sax ñu boolee la waaw ma gis euh, tabaski gi ñoom ñëpp ñu seen seen way jur di jënd mais yéen ñun li tax ñu ñu di ko def yéen du leen bokk leen ci mu ne déedéet dañoo ragal ragal doom yi di ñee doomi jullit ñi waaye ñoom ñi ngi bañ loolu waaye ñun ñi ngi bëgg a fàtte suñ bopp ndax ñi toog ñëpp ci Sénégal ko leen laaj lu 31 décembre lan la xam nañ ki ñu ciy fàttaliku muy yonent yàlla Isaa 24 décembre mooy juddu bi 31 mooy mooy kii kon nag bis li ko gën a eeyoo surtout fii ci Medina Cheikh Ibrahim surtout ci bisa fàttaliku Cheikh Mouhamadul Mamoun mi nga xam ne euh, xolam ak xelam ak jëmmam ak poosam ak lépp lu mu bëgg daf ko defoon ci masira bi nga xam ne mooy dundal masiratu Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu bi mu fi nekkee ak bim bim bim fàddoo yëpp kon nag su bis boobu ñu itam suñ ñëwee loolu yëpp ñu tolloo ko ñu ñi ngi sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamina yàgg nañ koo fekkee muy ñëw di bëggal nit ñi muy ñëw di yóbbu nit ñi màkka muy ñëw di di fàttali nit ñi amul muy ñëw di dimbale nit ñi ci seen dépasse yi ci lu nekk ci xolam ak ci xelam su amul dara sax su amut day dafay dafay dafay dafay xat su amee rek dafay gën a kontaan te dara defu ko te waaye loolu melokaan yooyu yëpp ñu ngi koy seetee di ko gisee ci baayam kon nag su amee bis nii Euh, jëmm yu tedd yi teew fi uy si biñ uy rek ñu yoon la ñu nokk ci jaww ji jaww ji kon ku fi ñëw rek amul sikki na sa aaju faju na te lépp luñ ci wax wax ji yëpp li mu mën a firi mooy yaa baax sëriñ maamoon moo baax wala baayam moo baax wala maamam moo baax kuñ kenn yëf yëpp kenn kenn ki la jëm kon nag lu ñu ko répété répété répété man óor na ma ne am na fi wax yu ma jiit yoo xam ne ñoo ëpp fasaaxa ñoo ëpp balaa waaye man tam damay ñëw rek pour bokk ci loolu pour bokk ci témoignage yooyu maa ngi gërëm mbokk yi nga xam ne taxaw nañ fii yëpp maa maa ngi jógee ca ca ca Fatick lañ lañ nekkoon foofu lañ indoon waaye foofu laa départ ñëw jaar si fi ci ci ci jotaay ndax ragal mu mu passé la ndax fii ku fi ñëw amul sikk ne tonn nga amul sikk ne dooleeku nga dolleeku ci zaahir ak ci baatin su fekkee ne euh, corona rek kenn ku ko amee mën na ko wàll mbooloo mi yëpp ndax toogaay bi muy toog kon foo xam ne dañ fay fàttaliku itam nit ñu baax ñi nit ñu ëw ñi kon mën nañoo am ñu jëlee fi yokk te te loolu mooy am sax te yonent bi wax na ne inda zikri saalihiina tatanazzalu rahmaat kon nag loolu laa ñëwoon li ma doon def yëpp pour bu ma bu bu bu ma jataay bi fàtt waaye kàddu bi du mooy am solo waaye kàddu yi ni ñuy wax suma ka yóbbaale nañ suma kàddu yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla taxaw njabootam gannaaw lim jaam lim ji jaami yàlla yal na ko yàlla fay ci moom fay ko ci njabootam gi lim éyne woon pay bii yal na ko yal na ko yàlla ci yi nga xam ne dafay def am na ñaan yoo ne soo ko ñaanee pay rek jeex na yàlla nag mooy tànn kañ la waaye amul sikk na ñaan yëpp nangu na ñu ngi leen di gërëm ñu sant asalaamaaleykum wa rahmatulah macha yal na yàlla guddal sa fan yàlla may la wér yàggale bi ci barke Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ku ne